asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu salli ala saalihi wa huwa almuslihu asaadiqu sidqu salaatan tuslihu mbokk yi tubaali abdin muridin saadixin lahumu bi xidmatin aw bi hubbin aw hadiyaati asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo ngi leen di ziar bu baax ci pàkk bu tedd bu sell bii bu ngeen gisee sunu image yu tedd yi di ngeen xam ne lii mooy teew ak mbokki taalibe yi fii ci xel Xelkom Daaru Xudoos muy tooli sëriñ Saalihu Mbàkke yoo xam ni moo ko fi bàyyi bàyyil ko fi ak njabootam sëriñ Cheikh Mbàkke moom Serigne Saalihu nekk ci kanam njaboot gi yàlla na ko seen borom yàggal lool te wéral ko moom ak ay rakkam mbokk yi xam ngeen ne at mu jot dañuy woote Xelkom di ko jox dongay tërbiye yi ci njiitul Serigne du njaay ñuy bàcc gerte gi di ko jëri mooy bees di ko for ba mu set waaye di dajale ngooñ mi ci benn barab waaye di dajale gerte gi ci benn barab looloo waral ngeen gis mbokk taalibe yi noonu ci ajjuma ji fenn fu nekk jële jóge nañ fi ci goxi senegal moo xam ndakaaru la moo xam Louga la moo xam mboolem ci région yi fu ci nekk doomaadama jóge na fa dikk ngir bëgg a ñëw daal di ñëw ci liggéey bu tedd bii nga xam ni ñun ñëpp ku ne xam na توفيق ديكو ko ci sunu borom subxanahu wa taala defal ndax barab bii di xelkom mooy barabu defaru mooy barabu ijaaba mooy barabu xabul waa mooy barabu taysirul asir mooy barab boo xamante ni lu waay di tiit bu ñëwee dootu ko gis lu waay di yaakaar di ko bëgg bu ko fasee dana ko yóbbaale. kon incha allahu taala seen télévision Mafatihul Bichri nii la fas ànd suba bu nu xeye ci gaaw bi dan ànd ak yéen ci lépp loo xam ne ab xew-xew la. bo am fi ci tooli Xelkom ma ànd ak Serigne Mor Mbaye wasalaamaaleykum hadiyati ila jumada saniya

المنيب